Elhadj leen jàmm ci xibaar yi yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak source yéenekaay gi duñu xamal ne ñaari nit ñoo xam ne kay faatu nañ ci diir bu gàtt tey nag covid gi moo leen yóbbu yéenekaay gi duñu xamal ne am na lu toll ci fukk ak juróom yoo xam ne rek jamono ji seen bakkan ma nga ci yi nga xam ne am nañ lu toll ci fukk ak ñeent yoo xam ne rek ay cas communautaire la diggante fan yi nga démb kay

jooje jaaxal nit ñi ci jàngoro ji ak nii nga xam ne rek noonu lay doxee bëri na ñoo xam ne kay jamono ji jàngoro ji nee na leen sarax ba léegi rek danoo lànk ne duñu dem docteur loolee nag bu ngeen gisee li moo di nag nii nga xam ne rek moo di bor di compte nga xam ne moo am yéene kaay bi dañu xamal ne ñooñee kay nga xam ne rek jamono ji jàngoro ji dugg na leen bëri na ñoo xam ne rek ci waa kër docteur yi ci la bokk siko yéene kaay diñu lim ba yéeg na ña am jàngoro ja yokk na ci réewum Sénégal docteur Bousso ne ko kay jàngoro joojee ragal nañ lool mu tasaaroo ci réewum Sénégal ba jéggi daye lool daa fii faat ñu bëri ñeneen ñu bëri itam l'observateur yéene kaay diñu ñoom kay càmbar gi ñu doon def professeur Seydi wax na ay dëggam yu bari la tribune yéene kaay diñu xam ne Abdoulaye Ndangaan ñii nga xam ne rek ñoo amee woon covid 19 jamono ji ñaari nit ñoo fa des yéene gi duñu xamal ne ca Tambacounda yi tamit naka noonu ñaar rek ñoom a faj bari na ñoo nekkee ca Kolda Kaffrine danoo mer bu fudd la ko waral moo di bëri na ci ñoo xam ne ay boroomi doole maanaam ñoo xam ne am nañu xaalis ñooy ran ci place néew gi doole gi ngir jël ceeb ga réew mi quotidien dinu xamal ne aji màkk ak ren gi waa fan la ñu mujj nekk ci arabie saoudi jamono ji kay ña nga ceeg waajtaay ne rek moo di délégué général bi nga xam ne moo lañ loo xam ne rek xamees na ko ci wal fajiri yéene kaay dinu xamal ne mbirum dorog meeg phobie yi ni nga xam ne noonu la jàmbaajoo ci réewum sénégal waa fbi ña teg gëdd réewum Sénégal la tribune yéenekaay diñu xamal ne benn militaire boo xam ne rek jot nañu ko faat fi nga xam ne rek moom moo di liberté si si yéenekaay gi duñu xamal ne demal fi nga xam ne rek moo di Ziguinchor am na kenn koo xam ne jot naa ñàkk bakkanam kookee kay ci ndell la jogi daal di faat Sud Quotidien yéenekaay diñu xamal ne lim ba kay ñett la ñi nga xam ne rek ñoo amee ay gaañu-gaañu foofee ca Ziguinchor l'observateur yéenekaay diñu ne